donc ci turu taxawu Sénégal mais aussi nekk nekk membre de Yewwi Askan Wi et di F24 F24 nag xamaguma lu mu doon lu muy tekki mooy les anti troisième mandat c'est ça dugal leen ko ci débat bi rek nee naa leen fii amul tabu amul luñ dul waxtaanee xanaa kay leer na wax leen li ngeen bëgg majorité bi dem mu ngi fi ñu waxtaan y' a pas de tabou y' a pas de sujet de sens interdit donc vraiment maa ngi lay remercier ci position responsable bi nga wone xam nga kilifa noonu lay def.